بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا borom bi mi ngi wax ca ña nga xam ne nii ñooy ñoddi di fiq wannaashitaati nashta ak ña nga xam ne ñooy nocci ak nocci wassaabihaati sabaxa ak ñay féey ak féey ci kaw asamaan yi wassaabiqaati sabaqa ak ñay jëkkante ak jëkkante walmudabbiraati amra ak ña nga xam ne ñooy wëlbati mbir ya di ko taxawee yawma tarjufu raajifa bis ba nga xam ne nii dana yëngu aji yëngu ja tatba'uha raadifa dana ca topp beneen yëngu quluubun yawma idin waajifa xol ya day bisi këroog lu tiit lay doon absaaruha xaashi'a gisin gisinam ya muy bët ya doon loo xam ne lu toroxlu lay doon yaquluuna a inna la marduduuna fi lxaafira ña nga naan ma ndax ñun daan ñu delloowaat ci suñu dund gu jëkk ga a ida kunna izaaman naxira ah même buñ demee ba nekk ay yax yoo xam ne yu ràpp lañu sax mi ngi noonu qaalu tilka idan karratun xaasira ñu ne kon day loolu dana nekk beneen dellun boo xam ne pertanga lay doon fa innama hiya zajratun waxida borom bi nee na benn jajj dong lay doon fa ida hum bisaahira ci noonu day la ñuy nekkee ci suuf boo xam ne nii bu talli la lenn du fa làq lenn du fa làqe muy saahira mi ngi noonu bay yee nit ñi doon nelaw mbokk kon lii di naziaat daanaka njëlbeen gi sorewul ak amma ca suñu borom yàlla da ciy giñ ci malaaka yi muy yónni ñuy jël ruux yéeféer yi mbokk ruux benn mbindaafoon spécial la bu yàlla def ci jëmmi ñaka soob ñuy dund ruux googee dana dugg ci jëmmi ji bu amee quatre mois ruux googee bis buy dee la ko malaaka yi di jël kii nga xam ne muy malakul mawut mooy kilifa guy jël ruuxu doomu aadama yi dafa am nag lu ñu tuddee awaan muy ñu koy dimbali su dee ne ab saay-saay la malaaka yi koy escorté melokaan bu ñàng la ñuy jël mi ngi noonu mi ngi mel ne rek tey jii les gendarmes ñoom ñëpp ay gendarme lañu waaye am ñu tuddee waa GIGN bu ñuy jëli ay criminel ak yooyu am na ay kagul lu ñuy sol malaaka yi noonu la ñuy ñàngi suñ ñëwee ruux gi day cramponné wu ca jimmi ja su ko defee malaaka yi yadribuuna wujuhahum wa adbaarahum ñu koy dóor di ka kii jàpp ruux gi xëcc nazaa mooy rocc ci kàttan xërqan mooy lu sori loo xam ne dañ koy xëcc guddi ko loolu mooy say-say bu bon ba amma bu dee julita julit moom ruuxam day yàkkamti génn mi ngi mi ngi noonu day mel ne rek ndox mu nekk ci biteel bu ñuy sotti moo tax day mel ne dëgg dëgg gu ñuy rocc rocc nànk jàpp rek xëcc mu mu- mu deñ loolee da ngay gis donte ne sakaratul mawt moom ñëpp daan ci jaar ngiree suñu borom yàlla far desatu bakkaar yi waaye it yëkkati la nga xam ne mooy daraja yi amma bu dara desul dee gi ci boppam loolee moom julit du ko yëg julit du ko yëg dañuy rocc ruux gi nànk malakul mawt su ko defee ñooñu nga xam ne ñoo koy gunge buy ñëw melokaan yu taaru la ñuy yor ñu ngi noonu ànd ak xet yu neex ànd ak loo xam ne nii mbàjj bu ñuy jëlee ci àjjana def ci ruux gi yóbbu ci histoire yoo xam ne loolu gudd na waaye daal nit ñi noonu la ñuy deeyee ñii naziat moo leen di rey ñii naashitaat moo leen di rey ñoom ñëpp ay malaaka lañ borom bi mu ne mi ngi giñ as-sabihat mbokk malaaka yooyee doomu aadama yi ñoom ñoo am ay kërëg ay yeneen ak yeneen mais malaaka yi ñoom kaw asamaan yi lañuy wër ci kaw asamaan lañuy nekk yàlla def ci ñoom ci lumière la leen yàlla bindee daa nekk vitesse lumière la la lañu am mu ngi noonu trois cent mille kilomètres seconde lumière da koy daw mën na am ñu romb loolu sax noonu la ñuy dawee ci gox asamaan asamaan yi waaye it sabiqat di jëkkante ci yiw jëkkante ci yiw rasul sallallahu alayhi wasallam day julli ne sami allahu liman hamida am ku mu dégg mu ne hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi bi ñu sëlmalee yonent bi alei salaam ne bi muy bi bi ñu julli am na ko wax nangam benn saxaaba ne ko man la de mu ne ko gis naa fanweeri malaaka ak ñett ñoom ñëpp ñuy jëkkante ku koy jëkk bind gis ngeen kon loolu gannaaw kiraamin kiraamin katibin am na ay malaaka sayaaxiin yoo xam ne ñu ngi wër di xool placeu zikr yi ñu ñëw wër leen comme niñ ko waxee toujours bu ñu ubbi am ñoo xam ne li ñuy déglu mooy asalaatu ala nabi di ko jottali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ila axiri dañuy jëkkante ak jëkkante loolu it muy wane na yow it jullit del jëkkante ak jëkkante te waaye dem julli ga bokkal ci ñay dem di julli ja ca jàkka ja te jàkka ja nga bokk bokkal ñay jëkkante toog premier sàppe ak juma la ñépp julli ji demal julli ji baax na waaye bokkal te ñi jëkk a ñëw nga xam ne yonente bi alayhi salaam nee na dañuy mel ni ñu rey gileem sarxe deuxième nag sarxe ba ñuy mujj ñëw avant imam nen la ñuy jàpp ne moom lañu sarxe amma ñu ñëw après imam moom seen tur duñ ko bind ci ci liste bi ala kulli xaal jëkkante leen ci yiw bu mu mën a doon borom boobu subhanahu wa taala it ne mi ngi waat ci ñiy taxawee mbir yi te mbokk yàlla mooy def lépp mooy dogal lépp waaye nag dafa séddale malaaka yi ay rôle jibril mooy wàcce téere yi ñu bari it moo leen mbugal mikail mooy séddale wërsëgi bi iznillah la nga xam ne mooy malakul mawt moo yor liste ñuy dee ila axiri lu ci bari ci guddig laylatul qadr la seen borom di leen xamal programme annuel bi programme bi am ci at mi ñii ñoo war a dee ñii ñoo war a feebar ñii ñoo war a sëy ñii ñoo war a teqaliko ñii ñoo war a kaza kaza kaza loolu mooy programme bi nga xam ne yàlla da leen koy xamal guddi laylatul qadr gu nekk borom bi nag di wax naan bis bu yëngu go ñëwee te mooy bu ñu wal bu ñu ëffee ci béjjën bi da ngay gis ne mbokko asamaan dana xotteeku suuf explosé doon poussière borom bi nag ne dana am beneen ëf te moom lay wax naan nufiqa fi suur فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون heure bu soobee yàlla mu santaat israfil mu ëf bu ëfee doomu aadama yi lépp dekkiwaat keroog bi ñu dekkee nag xol yi dana doon waajifa xol waajifa mooy tiitaange goo xam ne yegg na ci sa jëmm ba ngay lox mooy ki tiit bay wa lox kooku la ñuy wax waajifa du mën a téye xolam borom bi subhanahu wa taala nee na ña ngay toroxlu ngir seen bët ya tiitaangi sajj seen xafiya yéeféer yi nag ci àdduna ñu ngi naan waaw ñun bu ñu demee ba dee ba doon ay poussière ba doon yax yoo xam ne boo ci jëloon benn sax mën nga koo nekk di ko ëf mooy def na turu yuq ga ca nekkoon dem na muy naxira ndax jàpp nañ daañu delloo xaafira xaafira arab da koy wax nit ki lam nekke woon avant ndax lañuy delluwaat di dundaat di dundaat encore loolu de bu amee nga xam ne kon ñun perte nañu ndax ñun gëmuñu ko perte nañu te ñu ndax ñun gëmuñu gëmuñu loolu suñu borom nag nee na day loolu buy am ci benn jajj lay doon benn jajj lay doon doomu aadama yépp dékkandoo benn yoon mi ngi noonu moo tax suñu borom mu ne kalam xil basar dafa ni dekkal nit ñi benn yoon mi ngi yomb ci man comme yéen ni ngeen di xefe xifi comme ni muy dekkale kenn moom lay dekkale mille milliards doomu aadama yi nar a jaar ci kaw suuf xam nu ñu toll benn yoon la leen suñu borom yàlla di dekkal zajaratun wahida fa ida hum bisahira ñoom ñépp ñu génn ci suuf boo xam ne amul repère ma nga tàlli ñareet mi ngi noonu ñépp di gisante borom bi subhanahu wa taala keroog lay doon di xisaab ay jaamam loolu mbokk mooy yowmul xisaab yal nañu yàlla boole ñu waajal ko nañ ko war a waajale yal nañu fa yàlla teeroo njéggalam ak yërmandeem te defal ñu àjjana muy nekk suñu wàccuwaay mbokk wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain naam kon maa ngi reprendre ndax ci internet bi la jaar mu ni dama am doom ñu teg ci un an mu am beneen doom su may nàmpal ku mujj ki nag keneen ku ñë keneen ki day ñëw bëgg a nàmp ba léeg-léeg dama ko jox ween bi ndax loolu nan la ko lislaam gisee maadaama yow yaay yaayam su booba xale bi amagul deux ans dara nekkul ci nga nàmpal ko ndax bu doon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax kaa yu demee noonu dañ daan jël xale bi jox keneen mu nàmpal bu dee yaay ji daa ëmb bay nàmpal keneen xale bi daal sa doom la man nga koo nàmpal ba ba muy am deux ans même bu dee ci soowu rakkam lañ koy nàmpalee kii it di laaj ne waaw soxna si nga xam ne moo ko tey ànd ak borom këram ñu sëy ci bëccëgu weeru koor ndax moom it du kafaara na am am nañu ne dana kafaara waaye li ëpp tegtal ci borom xam-xam yi dañ ne moom def na kabair mooy bakkaar bu mag waaye kafaara ba jëkkëram la war ndax ka ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama ànd ak sama soxna ci bëccëgu weeru koor waxu ko muy kafaara waaye daal lu ci mën a am yow jigéen war nga moytu sa kemtalal kàttan dugg ci musiba boobu rawatina borom xam-xam yi nga xam ne dañ ne bu dee da koo coobarewu moom it day kafaara wallahu subhanahu wa taala aalam waaw kii moom di laaj sahaaba ya naka lañ doon dëjee ala kulli xaal mbokk sahaaba ya xamu ñoon dëj yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam dee kenn kenn deju ko kenn reylu ko nag kenn reylu ko gilim kenn reylu ko dara am déet abubakar bam dee kenn reylu ko nag kenn utalu ko ñetti fan kenn utalu ko juróom ñetti fan dëj daal ci lislaam xam nga mooy lana nit ki dee na nañ ko sang suturaal ko woo mbooloo mi ñu jullee ko ñi ko mën a gunge ñu gunge ko buñ demee ba suul ko ñaanal ko loolu mooy dëj ci lislaam li ci des mooy lan am njaal ku dajeeg moom jaal ko fu mu mën a doon amma nag nit ki dee la am musiba ñu jël beneen musiba teg ko te mooy mbooloo mépp ñëw mu war mu fas yéene la toggal ceeb yu neex ak jox leen naan yu neex loolee moom mbokk musiba la boo xam ne nit yi tey dañuy fontu waaye xamuñu ban xikma mu nekk ci gannaaw dee day dafa war a nekk tristesse delloo nit ñi ci yàlla waaye da ngay gis dëj yu bari tey moo dàq mariage yu bari moo dàq ngénte yu bari mi ngi noonu ah kii dafay laaj man sama jëkkër yàlla da koo nattoo day njabar ndax lim ndax loolu muy jële ci njabar ja am naa droit di ko lekk ala kulli xaal mbokk julit nit ki bokk na lu borom xam-xam yi di wax bu dee ne alal ji da koo faggoo fu xaraam ci amul faggu bu gën a xaraam faggoo ci njabar moo gën a bon sax faggoo ci na ci jaay sangara su dee ne moom dalaa jox yow la ngay lekk dagan na la moom moo gàdd bakkaaram waaye kay li ñuy wax kay mooy loolu nga wax ne moom sa jëkkër ab njabar la nga la waay soxna si jëkkëru njabar fexeel gis koo mën a gis ñu laay ko biir mu bàyyi njabar gi su ko mënta bàyyi fexeel sa fexe génn teqali ko ak moom jigéen ni jullit du sëyeg koo xam ne nii suñu borom yàlla rëbb na ko yeneen ci yàlla bi nee na du texe ku ko seeti du texe ba pare yow nga continuer nekk soxnaam loolee warul nekk xam naa ngi bi ñu ci mujjee mooy ki day laaj waaw islam lan la dégle ci koo xam ne dafa nekk ci ay ay tiis ak i problème ala kulli xaal liñ ko li ci nekk mooy ngay toroxlu ñaan yàlla te bari lu wax la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah suñu borom yàlla def na du ci bari ku koy sax ci problème yàlla dig la ca génne rawatina bari istighfar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ki takkoo istighfar yàlla dana ko teggil min kulli hammin makhraja farja da yàlla dana ko def tiisam yépp yàlla dana ko ci génne min kulli dayqin makhraja xat-xatam it yàlla génne ko ca ca wërsëgal ko fu mu ko foogewul woon kon baril di def istighfar comme na nga xamee ne nii noonu la ñëwee ci suratu nuux yo- kii di imam hasanul basri problème bu ko waaji nit ma sa indil daf koy wax istighfar gannaaw bi it rasul sallallahu alayhi wa sallam daana dénk sahaaba yi ku nekk ci ay jafe-jafe muy baril di wax la hawla wala quwwata illa billah kon mbokk mi ngi noonu insha allah bu dee am na ci mbooloo mi luñ ci mottali ci ay question ñu amot ki nga xamee ni nii moom bëccëgu weeru koor yépp da koy day nelaw bëccëg bi yépp xanaa lu dul bu julli jotee mu jóg julli waaw kooku day la muy def dañuy gis ne deful lu xaram waaye deful nag la gën ndax weeru koor mbokk dafa nekk weeru woor waaye weeru def lu baax weeru zikrullah weeru dox mbokk weeru nekk ci lu baax amma bëccëg bi yépp nga di ko nelaw loolu boo demee suñu mbokki naar yi bari nañu koy def ndax ñoom seen dëkk yi kon muy tànge dañuy gis dëkki naar yu bari weeru koor guddi gi daanaka mooy bëccëg bëccëg bi mooy guddi bëccëg doo gis kenn ala kulli xaal mënuñoo wax la muy def xaraam na waaye la ñuy wax daal la muy def moom gënul amma nag bu nelaw yo dégg moon ba di ko fàttaloo julli loolu moom day doon lu xaraam waaye comme mi ngi fagaru ba fu julli jotee dina jóg julli kenn mënul wax la muy def lu xaraam la wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk ñu doy loo loolu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk